waaw Garga ñu ngi lay nuyu di la ziar di la bëggee di la jox sa wàccuwaay. waaw auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim maa ngi nuyu mbooloo mi ñëw fii yëpp di nuyu journaliste yi nga xam ne ñoo teew fii bàyyi seen yitte di nuyu waa Cité Fadia bu baax di nuyu waa Parcelles Assainies gis naa tey ni génne wax dëgg yàlla bég naa trop Parcelles Assainies Cité Fadia Unité 6 xam nga parcelle 1 ba 26 bàyyi ma kenn Cambérène 1 Cambérène 2 gis naa seen génn bi génn bég naa ci trop di nuyu mbooloo mi fi taxaw ñëpp di nuyu dawalkatu saret yi nag ñoom njaga ñaa xam nga di leen wax ni wax dëgg yàlla bég naa trop du nuyu sama mbokk mbër xam ne dañoo bàyyi seen it yëpp maa leen di nuyu ku nekk sa turo san di la wax ni bég naa bu baax a baax mais Garga ngay pare le 19 incha allah Modou Lo Papa Sow mu ñu leen li macha allah mais sa adversaire nga koy yóbbante loo koy wax bis ba allah waaw di ko wax ne na waaj rek ànd ak ay mbokkam ñun ñu ngi waaj ànd ak suñuy mbokk tey waa parcelle gépp ma jàppale xam nga di sant waa parcelle gépp ñoom Modou Lo xam nga waa ñoom Papa Sow suñu grand xam nga waa Dóor Dóoraat tamit sant naa ñëpp Goro Sock xam nga. di nuyu nag waa kër Amadou Baye parce que sono yi nga gis fi yëpp ñoom ñoo ko def xam nga génne enveloppe bu duun indi ko di woo nag suma grand laaj Diop bu baax directeur Lonase di ko wax ni ko combat bi combat am la na ci jàpp bu baax a baax jëndal ñu bee di sant nag maam père ba bu baax a baax di ko wax ni ko combat bi la Euh, Néné Tall ñu ngi koy woo bu baax a baax di wax combat bi moom it mu ñëw jàpp ci di woo Moustapha Camara di ko wax ni moom it ñu ngi ñaanal mu tane bu baax a baax na woo autorité yi tamit ñu jàpp ci bu baax di woo maire Golf Sud di woo nag sama benn grand bu baax bu ñuy wax grand maanaam Gomis borom école laal stages gis naa jàppale bi di wax kontaan naa bu baax di woo sama benn grand Dame Gueye depuis Canada France di woo Dame Diouf depuis Canada di ko wax ne combat bi combat am la la ci jàpp bu baax a baax di nuyu nag journaliste yi toog fii yëpp waaw. ah yan ma yan ma nuyu na ñëpp gërëm na ñëpp na wax ci Mama Lamine bu ñu tëjee barrière yi Garga 2 Mama Lamine ci diggi géew gi. Mama ñu gis ne mbër la moo xamante ne nii ay combat mi bari par xeex la koy gagné. Garga 2 nga nekk ndaanaan lu bëri kat nga gëj a bëre tey gi day xale bi nga xam ne mooy Mama muy xale bu bëri coow làmb yaag Mama Lamine ci digg yow ñu tëj barrière yi sant nga ñëpp mais waxal ak Mama Lamine mu ci caméra yi non Mama ñu koy ñaana rek mooy yàlla defal ko jàmm ba le 19 bu ñëwee incha allah rabbi yàlla def ñu bëree moom jàpp ko daan ko ci kattanu yàlla ak mbaaxam bu xeexee ñu duma ko su bëree ñu daan ko déggu ma de déggu ma de ñu duma ko allah rabbi Garga ñu gis ni Mama Lamine xale la boo xamante ni bis bu jot day wax boppam gisaat beneen Garga 2 bu bees nga ñëw concentration bi surtout état de forme bi parce que bët day liir macha allah ñu gis beneen Garga 2 préparation bi nan nga doon préparé combat bi ak ñaata séance nga doon def par yi. Hmm. coach yi waa jàmbaar Wrestling hmm. parce que may ñu ma jàmm may ñu ma salaam hmm. lépp lu ma war a def rek wax dëgg yàlla may ñu ma ci jàmm ak dégloo ak dégloo gars nga ñoo ma doon yee fajar. di sant Papa Sow bu baax a baax a baax parce que mayu ma jàmm maam père ba aussi ñu ngi koy sant ak doomam Mansour parce que ñoom Papa Gueye ñoom Pape Ndiaye xam nga mayu ñu ma jàmm ko ay ñoom góor a njool xam nga góor a béy góor a soog mi taxaw mayu ma jàmm suba mayu ma jàmm ngoon fu ma naree noppalu sax ñu ne ma doon noppalu di sant tamit Aline Mbengue bu baax a baax parce que yóbbu na ma fu ne ci àdduna barke alxuraan hmm. parce que combat bi daf cee sonn di nuyu sama grand yi ñi nga xam ne ñoom laa bokkal baay ñi ma bokkal ndey ak baay yëpp dinañ ci ñëw nga ñëw ci maama la parce que naa non maanaam may ñu ma jaam loolu lépp ci préparation bi laa lay wax mm, mm. ñu ma xiif bëgguñu ma mer xam nga mm. bëgguñu ma manqué dara di sant tamit sama soxna bu baax ak sama waa kër bu baax grand yaaram Guèye moom damay ñibbi sama kër sax xoolal mu may woo téléphone naa ma defal lii lii baax na ci sportif defal lii moom it ñu ngi ñaana yàlla defal ko fanu gudd ak wér gu yaram wax dëgg yàlla ñun mbëri parcelles yëpp amal nañ ko sant moom grand yaaram ñoom Ibou Laye xam nga parcelle bàyyiwuma kenn ñoom Papis xarañ ñëw ñëpp a doon bàyyi seen idée di ñëw barke alxuraan. nee na da lay xalamal di la liitir di la wayal ba ci digg géew bi mu jël li moom dem ñëpp. nga man doomu ñeeñoon laa boo ma xalamalee damay gën a xabtalu soo ma tëggalee damay gën a xabtalu comprendre nga su ma defalee loolu dama koy duuma daan ko ci kattanu yàlla. nee na moom tarkindaa la du dellu ginnaaw te li mu war a wane ci yow la koy wane. man xam nga man xaw meew ma tarkindaa ak tur ñuy wax parcelle gépp nañ génn ñu mobiliser wu bu am doole. Hmm. ñu dem ndam di indi ko ci incha allah. tey bu la àdduna bi yëpp doon seetaan ngay ñaan Mama seen diggante yéen ñaar ngeen war a jëflante lan nga koy ñaan. mu non Mama Lamine amul lu ma koy ñaan la def lu ko arrangé man li may arrangé laay def ci incha allah rabbi ci làmb hmm. non man jox favori. non Mama Lamine lañ lañ jox favori. waaw nan mu bàyyi ba bis ba rek bu sifflé da ngay fekki wala man làmb lépp lu mu laaj rek parce que ñun dañoo nekk ci ay préparation nekk ci ay loxo dañ naa ma li ngay bëree loolu laay bëree incha allah rabbi di sant nag waa Jàmbaar Wrestling Academy yëpp di sant waa Parcelles Assainies waa kër Amadou Ba nag gis naa seen taxawaay bu baax a baax bégg naa ci ñoom di leen wax ni grand Seydou gis naa taxawaayam bu baax a baax wax dëgg yàlla di ko ñaanal yàlla na ko suñu borom defal jàmm grand Zemkan ah grand Naser xam nga waa kër Amadou Ba di woo nag encore Lat Diop di ko wax combat bi combat am la di nuyu doomu ndeyam yi ñoom Gora Mbaxal xam nga ak doomu ndeyam Pape Sall ñoom wax dëgg yàlla ay Tafa xam nga ak ak ak Tafa Buuju aussi. woo na ma tey ni ma Lat Diop dina ci jàpp bu baax. di woo Cheikh Fidior Khadim Touré. di woo sama mbokku ñeeñooy di leen wax ni combat seen combat di woo Dame Diouf depuis Canada di ko wax combat bi mu bëgg mu jëndal ma ay bari. may woote rek comprendre nga Lat Diop moo ne dina jënd yëpp. kon leer na. incha allah di woo nag waa di waa Ndande Fall yëpp. déggoon naa yeneen i adversaire déggoon naa yeneen adversaire avant kii di Mama Lamine yow mosoon nañ waxtaan lu yàgg yàgg moo tax nga toog ay ati at at bëre woo mais est que combat bi amul benn particularité yow yaa tànn Mama Lamine wala boog moom moo imposé wu ba yeneen combat yi waroon am amul. non xam nga ñun ay mbëru làmb lañ dañoo ne ci ay loxo. ku ñu wax ni bëreel ak moom rek ñoom loolu la ni kooku la ni bëreel Mama hmm. champion la def na ay preuve xam nga li ma la ñun aussi toog nañ lu yàgg gëj a bëre laamu boole ñu ñu bëre war a bëre incha allah di ñaan yàlla may ñu ndam ci kawam rek bu sooba yàlla mais gars yi ne li ma ci war a wax yëpp wax naa ko li may wax mooy woote parce que aussi làmb ji promoteur bi daf fay xaalis pour ñu mobiliser ko di woo waa parcelle gépp waa Ndande Fall naa seen taxawaay bu baax a baax sant naa ñëpp képp foo xam ne dem naa fa ñaan lu rek du nuyu waa Touba waa Darou Salaam waaw ñoom si Sidi Mbacke Baye Baaxe di leen wax combat bi combat la ah. muy naa nekk euh, bu équipe bi nar a euh, takk sa ngemb. est-ce que pression bi du ci yow. non ñun ay yàgg nañ ci làmb xam nga li ma la mu ngi mel ni ma nekk parcelle di préparer génnuma parcelle ba tey comprendre nga samay grand lan dañ may gunge di nuyu waa Dóor Dóoraat yi nga xam ne fa laa nekkoon staff bi yëpp. bàyyiwuma kenn parce que gis naa seen taxawaay ci combat bi ay vieux xam nga dañoo bàyyi seen yitte yëpp Cheikh Thiam bëgg Fallou maa ngi koy nuyu Diagne di nuyu sama mbokku mbër yëpp nag di nuyu Galaye Ndour sama xarit sama doom day nañ a que loolu mën nga ko confirmer waaw làmb bëre dóor lañ wax xam nga bëre dóor moom bu nuy wax lépp nga yóbbu da ngay yóbbu xeex yóbbu bëre parce que kenn du dem guerre di fàtte sa arme comprendre lépp lu làmb ju laaj ci carton yàlla dinañ ko def di woo waa diriger da ngay diriger. non loolu nan bàyyi ba le 19 incha allahu rabi. te si tuus mi. non tuus mi benn tuus mi xam nga tey ku ci mel Gawlo xam nga tey boo xoolee open press bi ni mu mel rek open press gëj naa mel nii. dëgg la comprendre nga géwél yëpp gis naa seen taxawaay. ak gawlo yi xam nga. di woo sama mbokk ñeeñooy encore une fois di nuyu sama mbokk yi. samay ndijaay sama mag samay papa xam nga mhm. du nuyu doomu ndànd yëpp di leen wax ni combat bi dama soxla ñu jàpp ci bu baax a baax lan nga yóbbante Mama Lamine di woo Sidi Tànn di woo sama benn grand loo yóbbante Mama Lamine Mama Lamine li ñu mooy na waaj rek na waaj parce que ñun pare nañ wax dëgg yàlla jumbo tamit gis nañ ndox bu bi mu indi xam nga di woo sama grand Kéba Kanté di woo waa France ñoom Cartouche may na ma xaalis bu bari Ramdan xam nga moo Lo jàpp na ci bu baax Papa Sow gaa yëpp daal gis naa seen taxawaay di woo encore une fois Xaarim Touré di ko wax combat la moog Cheikh Fidior dama bëgg ñu jàpp ci bu baax a baax. du sant tamit waaw kii mooy grand Serigne Ndiaye dañ koy ñaanal yàlla na ko suñu borom yërëm te xaare ko ci àjjana firdaws ci biir ci biir inde ci biir koor gi ci la woor ba ngoon jot nekkoon Turquie daanu malaise suñu borom yóbbu ko ñu ngi koy ñaanal yàlla na ko suñu borom yërëm duñ ñaanal tamit sama jarbaat bi nga xam ne moo làqatu fan yi ci géeju Malika bi di nuyu di jaale tamit béy di intekat gis naa wax dëgg yàlla famille bi yëpp maa ngi leen di gis fii di ko ñaanal suñu borom yërëm ko te xaare ko ci àjjana firdawsi di ñaanal sama jarbaat yi tamit yàlla na leen suñu borom yërëm te xaare ci àjjana firdawsi Garga di gis naa seen taxawaay di leen masaw coono parce que tamit